every year. 29 this year. It's going to be 29 March, mm -hmm. you know, the same place, uh, hopefully Jakarta. Mm -hmm. And mm-hmm. we're promising the people that we're going to bring international acts. Ah, <laughs> yeah. we'll be around. <laughs> <laughs> let's let's hope for the best. Yeah. You never know. Anything can happen. If you have the money, you can provide. <laughs> Anyways, uh, before that club, it was nice. Uh, yo, yo, yes, nah, I'm telling you, man, my, my respect to everybody in Basel. Make sure you guys keep <laughs> wow. loading your credits. So, hamga. Okay. Now, push up board. Mata xool ko mu ngi promo boo baax moom mooy nekk suma bodyguard bi. mooy nekk waaw na ko fit sax. ok let's um, hmm. ah, ah, bi moom yaa ko génne. seven bi yàlla bu mu nekk ah, gars yi Dabakounda yi. <laughs> ok xay moom du ko yàggal sax <laughs> bu fi ñëw nag dig na wina dara am nañ fi ñëw dig mixtape ok yëpp waa xanaa suma bos tuma ko waxangul <laughs> <laughs> seven one seven one eight one zero seven nine Uh, 7181079. If you're listening to us on Apple Radio, the winning number for tonight is 7181079. You've won yourself $50,000 sis. Uh-huh. You know. Kii def naa ko wii nag kii def ma ñëw si show yëpp at bii nag. Loo ko ah. Loo ko jox. Kii am na 50,000 ba pare Um, <laughs> let's see. Manako naa koo ok manako jo ko album. Wow. Ak benn uh, official Katato t-shirt. Wow. Yeah. That's nice. That's very nice. That's for the winner. lu ñoo def rek ñoo invite suma benn man Njaago sista kañ moom moo win euh, fo na may foos Njaago bu win sax moo win waa fifty thousand dalasis nampele bili hay kalisa bili kay ban nampele bili mooy kay kay kan bili ndog bili bili waaw ah, indeed bili moom baa ñu waxtaan ak yow waaw xale jigéen ñi de kontaan jigéen wi ne xamuloo sax ngi ñëw maa ngi jubali ma ne kuy wina bi ñu ne yow rek ma yes kontaan nag te nga nice <laughs> na nga tudd ah? Lisa Lisa naka Gomez Lisa yow dag dee liggéey loo dee def ba restaurant Royal Service foofu nga dee liggéey mm. ok yow nag yëgoon nga ne promotion baa ngi on waaw yëgoon naa nga ko tegoon sa xel ne di nga win or. waaw tegoon suma but I was buying credit all the time di bari de rek xam nga. waaw di di daaneel di dem rek. di dem rek pour riitee far nag mu fekkasi la yow. mu fekkasi ma. léegi yow nag am sure nit ñi call nañ na parce que ni ñi dañ nekk di call winner si but by the way thanks to the for that <laughs> so am sure nit ñi call nañ la. so nag yow buñ la callee gomoon nga ne yaa win. because one call ñu ne ma borom. fifty thousand ma ne man. ma ne déedéet kay. ma toog ñu kool di kool di kool. ma yuw loolu lañ ma tura ndox. ndeysaan. kay. léegi Africell waaw bi ñu ma koolee eh, on Sunday. Mhm. ma déggee. Ronald Ronald mm-hmm. Batam mm-hmm. mu ne ma ne win dégg la nga xananti call ma ne ko waaw call nañ ma mm-hmm. mu ne ma dégg la nga win I was <laughs> daal dama <laughs> waaye léegi nag ah mm. fifty thousand baa ngi nii yow win nga ko yow nga ne yaa ngi liggéey Royal Seven léegi yow soo winee di mm. fu moo dem dama kontaan be xaw ma sax xamaguloo de fa la xaalis bi dem xanaa ma toog kër taal fan bi ma ndokeeku mu ne mu taal fan ma ndokeeku tuuti nga doo ko xalaat ah, waaw ma doo ko xalaat ba sama biga biga biga big ba mm-hmm. only God knows it ndeysaan mm-hmm. ten moo nekk sa loxo noonu mm-hmm. bi twenty thank you thirty tiyel ñaari loxo forty aha fifty that's good gëm nga mu ne that's good <laughs> mu ne that's good ah kontaan naa waaw nga laka njaago fii nag waanga nga wagaañu jina moo credit na ñoom ñaago bu déggul njaago ga dégut ya sapo ak fi toog bu ko duglo de man tipu jaba it man jakku ñi bu ka trial bu ku mel credit rek because ko ci ka mel credit ko ka chance so mtef mjom ni mel credit ah wóccuwul mhm. wóccuwul de so aci bu rek su wiini rek loo am pour waa Africell jërëjëf rek waaw ñu dem kanam mhm. waaw sa kanam rek Africell sa kanam rek loolu rek loolu rek di seede xol yi nit yi ndeysaan parce que yow sa xol bi seede na fu mu nii fu mu nii moom waaw kontaan nañ trop euh, si si si Lisa Gomez euh, jóge ko Lamine euh, moo win lii di fifty thousand dollars yéen tam mun ngeen nekk winners si show bi def rek mooy jënd crédit 25 ak li jëm ci kaw mhm. ngeen win fifty thousand dollars since mhm. soo da ngaa tëjee tam balaa ñu tëj show bi beneen mu neex <laughs> ok um, It's a little bit controversial because mm-hmm. mm -hmm. the people love it, mm -hmm. and mm-hmm. definitely I have to do it for them. Everything them say is the opposite of digger. Them are rumors spreaders. Fire where we burn, pan their backbiter. The street love the song, and the video is out so watch out. Gana na? Mm No, no, yan gisango lang. Man So, we... yeah, no, uh, we're gonna, we're gonna, we're gonna premiere it very soon. Yeah? Yeah, very soon. Um, hopefully. Well, I don't know. Man, mabuga ham. Niway bitula, niway bitula balanyo dem. Fen rek na lang apaski. Wa, fen rek, ni fen rek, rumors pedas. Wati galubah lang. Li degala. Li degala. Li degala. So, obviously, no, bi degala because my egg is 50,000. So, bi degala. Wa, hospital. <laughs> Anyways, uh, we thank you very much uh, for watching. Uh, we'll be back here tomorrow on the same station giving out $50,000 again. Want to thank Mr. T. Smalls, a.k.a. Thank Katato, you. a.k.a. Thank you. Koto, a.k.a. Mr. Gatan Daute, but the problem, wow, time when I see Jamala, why you still book? Yeah, please. No, I put the sound, sound billing there, the if trouble. Apart from sound, we can in the passion, I'm good. Yeah. Anyway, it's England, I get him, Bahava, then a programme yi bu crédit dugal biir ngeen lu bari fi yàlla rek ñu jaama jëf la I just won $50,000 in cash. Africell brings you another mega promotion. $1,500,000 is cash to be won this month. That's AfriSol Daily Crazy Cash. Every single day, AfriSol is going to give away $50,000 in cash to one AfriSol subscriber for a period of one month. That's more than $1.5 million worth of cash prizes for you to win. Simply recharge $25 in credit or more to be one of the lucky Afrisol subscribers who will go from Monday to Sunday. Reach out $25 in credit or more and make sure you get an entry to the live draw on GRTS TV to be the winner of the day of $50,000 in cash. And $25 is credit you recharge will give you one entry in the draw. Thank you. It's another edition of your program One on One. But just tonight, Mrs. Louise Darling Davis, otherwise called Mama D. Mama D. Mama D. Yes. The extended yes, D. Mama, <laughs> how old are you? I was born in 22. 1922. That's, That's up to 91 years. I'm looking forward to my, to my 91. You already in 91 this year? Yes. You head into 92 now? I should think so. Yeah. Yes.